أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ziyaare ñépp ñu ngi ñaanal ñépp ñu am jàmm ñuy ñaan yàlla mi moom kàttan te am sañ-sañ te yore ndogalam te di ko dogal ci nu mu ko neexe ak fu mu ko neexe nga xam ne kenn du ko wax lu tax ak defal moom lay neex mu def moom lay neex mu bàyyi amul beneen bindeef bu am boobu sañ-sañ yàlla bindu ko ñuy ñaan moom moomu feebar bi nga xam ni moo lëmbi àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ba mu jeex takk takk mboolem rek ku dëkk ci suuf bi ñu dëkkee muy planète bii ñu nekk jàngoro boobu ak beneen bu ko mel yàlla ko fi yàlla jële ba mu set wecc nit ñëpp delluwaat seen activité di liggéey di nekk ci jàmm di jëflante ci jàmm di eenante ci jàmm di waxante ci jàmm tey nag ma indil leen maanaam burd bi ma doon bi moo bi moo leen digoon incha allahu koy continuer ba mu jeex ni ma leen ko waxee woon bu soobee yàlla noonu lañ koy defee ba buur du jeex ci kàttanu yàlla tey nag dama indi salaamun yi nga xam ni alxuraan andi na ko te mooy firi jàmm léegi nag nga ñaan yàlla mu may la jàmm ci àddina nga ñaan ko it mu may la jàmm ca alaaxira jàmmi àddina mooy yàlla may la nga gudd fan mu may la nga wér mu may la sutura lépp moom boo ko amee rek am nga jàmm àdduna jàmmi alaaxira nag mooy nga dem ba àgg mu ne la coono yi nga doon daj ci àddina dootoo ko daj kaay ma dugal la àjjana ñaar yooyu moo jara ñaan te buñ koy sàgganee nañ koy boole ci suñu ñaan tey nag ma indi salaamun xawlan min rabbin rahimin ku nekk xam nga ko سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر mbokk سلام إليه amul lu mu mënul ci kàttanu yàlla bu yàlla dogalee nit ki xëy wax ko benn bu mu nekk mu wax ko cent onze bu xëyee suba wala bu guddee mu wax ko cent onze yàlla dina ko musal ci lépp luy loru doomu aadama lépp nag luy lore yàlla dana la ko ci musal kon loola barewul te soo koy jëfandikoo dina baax ndax ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy umma umma al umma al islaamiya bokk ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu gën a war a def ñaan yàlla mu may ñu jàmm ci suñu biir en tant que mu may ñu jàmm ci suñu biir en tant que africain ñu may ñu jàmm ci suñu biir en tant que nit su ko defee loolu buñ ko yàlla defalee jàmm daal di tasaaroo ci biir réew mi kon salaamun xawlan min rabbir rahimin benn bu ci nekk dama ne li ci njëriñ ak li ci mag ñi génnee ci njëriñ kenn xamul nu mu toll man nag lépp laa boole salaamun qawlan min rabbi rahimin nga def ko 111 salaamun ala nuuhin nga def ko 111 salaamun ala nuuhin fi laalamina inna kadalika najzi lmuxsinin 111 salaamun ala ibrahim nga def ko 111 salaamun ala Moussa wa Harouna nga def ko 111 salaamun ala Ali Yaasin Ali Yaasin mooy Ilias gis nga Ilias lu kéemaane la ndax toujours dañuy wax ni Idrissa moo dem kaw asamaan pourtant Ilias itam noonu la def ndax Ilias bi ko gaañi kappangalee pour war koo rey la ñaan yàlla yàlla yéen andil ko fasu leer Ilias war ci kaw fas wi dem kaw asamaan moom mooy salaamun ala ali yaasin mais ilias la noonu alxuraan andi na ko salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin loolu yàlla moo ngi wax waa àjjana ni salamun alaykum tibtum mucc yal nek ci yéen yéen tay nek ngeen nit ñu sel nek ngeen nit ñu teey fadxuluha dug leen ci bir aljana xaalidin te bu leen fi génnati salaamun hiya xataa matla'il fajri kon ben bu nek su ngeen ko waxe 111 lépp luy lor doomu adama ala kulli hal mbir momu yàlla dana la ci musul mo xam lu mu mën ci do lenn nak mom rek la mënul garantie ndax buñ la fetelee dana tak koko mom bokku bokku ci mais li wor te wor moy bis boo wax ko 111 buñ la dé fetal su fetal yi tàkkee tam buñ la jam bo nekkoon ci àll bo xamni àll bi ay gayde la ngay réer xamulo fo jëm boo ko defee cent onze ala kulli xaal da nga mucc yàlla dana la musal boo def bu fekkonte ni yaa ngi wadd ci biir ndox mi maanaam lii sax ku ko wax mën naa am xëy na doo jaar ci ndox mi ba di ba di daam ndax yàlla dana la musal ba fépp fu doomu aadama war a loroo rek ala xaal boo fa jaaree yàlla daf lay musal ñi nga xam ne nag ñoom ñu ngi dëkk ci àll yi ñu am béréb boo xam ne dafa am béréb bu jaan benn bu ci nekk benn yoon nga koy bind salaamun xawlan min rabbin rahimin benn salaamun ala nuuhin fi laalamina inna kadalika najzi lmuxsinina ñaar moom itam benn salaamun ala ibrahima nga bind ko benn salaamun ala musa wa haaruna nga bind ko benn salaamun ala ali yasin nga bind ko benn salaamun alaykum tibtum fadxuluha xaalidina nga bind ko benn salaamun hiya xatta matla'il fajri nga bind ko benn bépp doom aadama boo ko takkal muy sa tuut tànk ak lu mënti doon luy dox ci kaw suuf du ko gaañ gaynde du ko fàdd du segg du yeew waxuma la nag jaan su dee jaan moom boo koy jub rek mu commencé yuux di daw fa tabaarakallaahu kon li ci nekk nag bari na bari boo xam ni lii rek laa am droit yam ci mais leneen lu ci des rek nga ñaan yàlla kat salaamun yi bari na jang na ko 111 ma ngi ñaan yalla lepp lu ci lu baax yalla na ma ko defal nga ñaan ci sa wërsëg ñaan ci guddu fan ñaan ci teranga ñaan ci wër dama wax nak ñun wa Afrique ñun suñu lekk yi ñi lekk jabul suñu faju jabul suñu naan jabul suñu climat ni nga xamni mom la ci saxar si ñëwee dugg jabul kon ñun li ñu gën a jafe ci àddina mooy wér-gi-yaram wér-gi-yaram mooy suñu vrai vrai vrai problème loolu mooy suñu problème boo feebaree ba dem ci suñu hôpitaux yi dangay jaaxle dangay am sa xol bu tàng kon ñun li ñu war di def nañu góorgóorlu ñu ñaan yàlla mu may ñu jàmm ñu ñaan yàlla mu may ñu salaam te jàmm ci la wér-gi-yaram nekk lii góor mën na ko jigéen mën na ko dama wax nii rek mais yaa xam lan nga bëgg ci àddina nga ñaan ko ci yaa xam yaa xam wërsëg waa gudd fan ak teraanga lépp ak sa njaboot nga éenewaale leen ci ñaan yàlla mu defal la jàmm soo ko defee ba pare nag nga doog a jàng yaa salaamu yaa salaamu yaa salaamu 371 loolu moom bu ko bu ko ku ko ku xam ni mën nga saxal lii na nga japp ni amul benn mbindeef bu lay manal dara dara dara dara ci kaw nag ñu ngi ñaan yàlla ci kaw nag mu ànd ak njub mi ngi jub di wax lu baax di def lu baax di éenante jàmm di yar suñuy kàddu di rafetal ay jikko di fonk suñu julli julli juróom te ànd ak njàpp loola kat ab jullit moom moo war a nekk baaxam moom moo war a kon salaamun yi fii laa ci yam Mm, la ca des nag duma ko wax mais damay ñaan képp ku ko ñaan rek la des ci baat yi ak baaxam benn bu ci nekk bu ñu la ko doon waxal da ngay waaru ci sa borom mais ku nekk nga def ko 111 soo koy bind pour téere nga def ko bu nekk benn yoon amul lu la mën a lor ci kaw suuf luy dox du yeew du jësit du jaan du gaynde du segg ak yeneen yi nga xam ne war na mën lor doomu aadama boo ko bindee benn yoon takk ko ala kulli xaal yow mbir moomu bu la neexee nga def ko genre jaaro def ko ci këyit bu ndaw bind ko def ko jaaro wala nga def ko seen takk ko ala kulli xaal yow aar nga sa bopp kon moonam ñuy wut ceen ay bàgg bi yépp kii mooy vrai vrai vrai bàgg nga xam ne wal qouranul karim la yamassuhu illa al tanzilun min rabbil alamin nga def ko jaaro bàgg bu rafet yow aar nga sa bopp am na ñuy dem di uti bàgg masi kii moo gën a foor bàgg masi li li ma wax kay mooy ku ko am rek na ko def danga dem a dem a dema a dem a dem ba xam ni waa ji li ma jox dëgg dëgg est ce que xam na kon yal nañu yàlla defal jàmm adduna yal yàlla defal ñu jàmm alaxira kon seen mbokk Cheikh Ahmad Tidiane Niang moo leen doon andi lii yal na yàlla defal ñu dégg ak topp képp ku ko dégg. ba jëfandikoo ko lépp loo ci def yàlla la yàlla wan lu ko ëpp junni yoon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ala